ah en tout cas euh, yow moom pour nit ñi fi mu nekk nii joxaat la beneen rôle bu dul rôle policier dina doy xaw ma nu ko seet <laughs> dina dina yéeme mais en euh, en dehors euh, ci série bi Pape Ndiaye en tant que Pape Ndiaye ak famille Pape naka lay dundee nit la boo xamante ne bi ku am caractère la ci film ku sévère ci film mais ci côté famille Pape ban genre nit la. xam nga man dama ci suma problème mu famille. Hmm, benn royukaay rek laa am mooy sama papa sama waajur bu góor. ndeysaan sama tout fait pour nous et il le fait jusqu'à présent. même malade il le fait. il est un peu yàlla na ko yàlla may wër. ak yokk fan ak fanu gudd. mais aw ma. awma beneen royukaay bu romb sama awma pour man. awma kenn ku gën ci sama àdduna bi ma nekk nii ku gën sama papa. fu mu nekk. mu ngi fii Dakar ak man. awma awma ku mën ci sama papa ci man. amul ma gisuma gisuma ko fees sama bët ci àdduna ku may sama papa. gisuma lenn ci àdduna lu may sama papa. incha ñaan yàlla di ko may wér. amiin amiin parce que en fait j'ai eu un boo xamante ne il euh, magnifique macha allah. Euh, mon père euh, bugguma sax di ci di ci xëcc di ci wax parce que en fait nit ñi dañuy naan euh, nit chaque fois il est proche de sa mère c'est vrai ma mère je l'adore mais mon père c'est c'est mon c'est le boo ko waxee nag nit ñi duñu gis am fi ñuy gisee mais mon père c'est ah, mooy sa man man waxuma ay ay ay rek laa ma ma yóbbu woon ci sëriñ bi gën a mag Sénégal dama koy naan gëm naa la wóolu naa la bëgg naa la waaye kenn du sampa man naa wax loolu mais alors li ngay wax nii c'est c'est émouvant en même temps lu bëri def ci làqu ci biir parce que mën nga ñu wax tuuti tojal ñu yax bi tuuti sa diggante ak sa papa c'est quoi en parce que yaakaar naa ne lii euh, dafa romb sax donc on perd mais euh, tu l'adores ah. waaw mm, nit ku nekk mon père hmm, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour nous c'est ça toujours euh, ci quelqu'un boo xamante ne mënuma ci wax quoi yal na ko yàlla may fan gudd ak weer c'est mu ngi ci c'est mouvant c'est mouvant mu ci xuus Pape. c'est mouvant c'est mouvant il a il um. a grand. c'est. Ah, uh, monsieur grand monsieur c'est c'est vrai que. Um. liggéey um, supérieur de la police. mu yar ñu ci ci ngor ak jom ak teraanga. ci loolu la ñu yar sa sam sam bu mu nekk euh, le chef de village lañ ko doon woowee. ndax mbaax gu mu baax tellement que c' est euh, de c' est quelqu' un qui donne tout sam papa toog atte une famille bu disloqué mu toog boole leen ba ñëpp joxante loxo amaana nag mu romb nag mu romb njobootam man xaw ma nijaay xaw ma. xaw ma bàjjan xaw ma kenn. c'est vraiment moi, émouvant Ousmane moi... côté de la régie waxal madame Diop mu mu may ma mouchoir c'est c'est c'est c'est émouvant donc euh, de parler de de de d'un père qui comme ça parce que yaakaar naa ni bu nu dee euh, wax ci papa joo xamante ne bi yaakaar naa ni dafa romb sax papa ci ci ci waajur waaye nekk nit bu nit boo xamante ne bi yàgg na euh, di di di di di. di dimbali ay doomam ci li nga xamante ne bii mooy sutura ak teraanga bi nga xamante ne bii moom la ko yàlla jox mu nekk loo xamante ne bii bu ñu dee bu ñu dee bu ñu dee seetlu euh, bëriwul kuy toog di wax ci papaam comme ni nga ko waxee souvent nit ñi ci seen yaay la ñuy la gën di insister. waaw ah, bëriwul nit buy toog di waxee nii ci ci ci papaam c'est kooku yàlla na ko yàlla may wér guddal fanam. papa c'est en fait euh, je que refléter lu mu dugal ci sama yaram quoi. may toog chaque fois que je fais euh, may may jéem pour def. nu muy doxale mënuma doxale neneen lu romb quoi loolu laa moom c'est pourquoi j'aime pas trop trop parler de de ma famille suma famille yëpp lépp sama papa la quoi jeex na c'est ça ma famille c'est ma vie de famille c'est ma c'est ma vie de de tous les lépp lépp sa papa la waaw ah, lépp moom la quoi. ndeysaan macha allah yal na yàlla guddal fanam. yokk ko wér. macha allah euh, Pape Ndiaye c'est vrai que donc xam naa ni dootuñu dootuñu dootuñu dootuñu guddalaat sax parce que fi mu nekk nii moom euh, euh, <laughs> voilà xol yi tooy nañu mais dama lay laaj rek bref donc sa sa sa vision ci ci ci téléfilm donc lan la sa vision ci cinéma. bon cinéma waaw hmm. <laughs> ah, li ma ci mën wax fi mu toll mooy que en fait na ci gars yi jàpp quoi na ci gars yi jàpp hmm. mën na dem xam nga xam nga Sénégal mooy lu lu Cheikh Samba Diallo doon wax maa ngi koy liir mu ne Sénégal mën nañu am lépp. Sénégal mën nañu am lépp. wallaay mën nañu am lépp xam nga tax ñu mën am lépp Sénégal même le même le plus petit enfant ku gën a tuuti ci kër am na vision mais lenn rek la defaraat Sénégal mooy yar bi. yar bi fii dañu toll foo xamante ne léegi ku nekk mën nga yar sa bopp. ku nekk mën nga yar sa bopp. ku nekk bu yaree boppam ñun yegg fu nekk fu ñu war a yegg ku nekk dinañ fa fu ñu bëgg yegg dinañ fa yegg cinéma bi tamit foofu foofu la toll ko foofu waaw kenn ku ci nekk nga xam waar wi nga ciy béy. Uh-huh. kenn ku ci nekk nga xam li nga sa taxawaay fan la ci war a nekk. Uh-huh. kenn ku ci nekk nga xam nan nga ci mën a roofe sa loxo. parce que boole booloo mooy doole. léegi nag lu ci des mooy que ñëpp aussi xam ne. Mm. te ñëpp mënuñ def cinéma tout le monde mënuñ def cinéma. et que producteurs yi gën a jàpp acteurs yi. xam nga man man damay dama koy wax chaque fois ah. am na ñu ma gën a talant talentueux ñu fi nekk. xam nga xam nga dégg-dégg dafa jafe. Mm. boo nee producteurs yi ñu jàppale acteur yi. Mm. si ça ça devient compliqué nit ñi am na seen ñoo xam seen gis-gis mooy dañuy xalaat ne yow. Mm. peut-être dana la xool xam nga gis nga ku nekk. yaa xam fu sa wërsëg nekk. ku nekk yaa am sa gis-gis fu mu nekk. bien sûr. mais ku nekk bu jàppee fi nga war a jàpp. Mm. kenn ku ci nekk xam li mu war a def kenn ku ci nekk xam fi nga war a jaar ku nekk jël ci sa wàll tey boo toogee nen maam mën nga nax sa bopp. am na keneen ku la mën. man li ma mën am na ku ma ko dàq li keneen mën am na ku ko dàq mais lu ma war a def nit mënul fexe ba man Pape njaay duma ko def. gëm-gëm boobu laa ci am moo tax duma ma topp mënuma topp producteur mënuma topp maison de production mënuma topp mënuma topp ma sàmba mënuma taxawaalu kër mënuma taxawaalu maison de prod bi mënuma dugg maison de prod bi man bu ma paree maa ngi suma kër ku ma woo kaay joué ma joué bu ma joué maa ngi def li may suma liggéey ma dem defi ko noonu macha allah macha allah suñ ma woowee mm. ma ñëw def ko ni ma ko war a defee pare demaat nekkaat ca la ma nekkoon ci muy sama waaru bopp sama liggéey. Mm. donc euh, mais soo nekkee bëgg wax ne nañ ñu jàppale nañ def nangam. day mel ni mm. yow doomu yaa mën. ndeysaan te ñu la mën bëri na. Euh, naa ñi lay seetaan à travers le monde bëri na euh, te itam am na ñoo xamante ne bi say fans la ñu yàgg nañu bëgg jokkook jokkoo ak yow est-ce que di nga ma permettre nga jox leen sa numéro est-ce que mën nañ la contacter directement pour pour ñi si ñi nga xamante ne bi bëggoon nañ la jot amuñu fu ñu la bindee wala amuñu fu ñu je xam nga. waaw wala sa ay page Instagram wala Facebook. xam nga dama dama dama ko dama koy wax chaque fois dañuy dañ may dañ may ree nee nañ ma. Mm. Pape Ndiaye yow ku la bëgg jot ku la bëgg xam ku bëgg def nangam man leen man suma page Instagram. sax mm. xaw ma dafa mu koy gérer mais xaw ma sax lu mu koy lu mu koy gérer. man xaw ma ci dara. parce que loolu nekkul ci sama dama xam nga gis nga dara. da mm. koy def ak amour dama ne. luy ñëw mm. te xamoo fu muy jóge mm. bu waree ñëw du nit moo koy kale ça c'est sûr tey ku ma soxla woon tey mm. am lu mu bëgg ci man bu mu bëggee jot dina ma jot bu jaaree ci yow ma mat de waaw loolu foofu la ko yàlla jaarale wallaahi wallaahi gëm-gëm boobu laa am moo tax j'aime patro trop euh, yow Euh, peut-être euh, am na xaw ma foo ma jaar. <laughs> Euh, man gis naa ne bii mooy sa première interview non non blague à part. na ñu ma approché. ñu ma approché ñëw ci man non grand dama bëgg ñu def interview ak yow grand dama bëggoon ñu ñëw defal ñu defal yeewu ngay yeewu sa kër. ñu ñëw filmer la xam nga man leen laaj man du star man fi ma doon naan te fa laa koy naan. ndeysaan ñi may àndal gis naa loolu ci yow. mooy fure aw ma aw ma aw aw ma aw ma aw ma war a dem damay dem. gis nga gis gis nga fi ñu toll nii nit gis rek sopp la bëgg la. Mm. du yow. du nax dëgg la. du yow. wallaahi dëgg la ça c'est waaw gis nga mbëggeel. Mm. yàlla moo koy def ci nit. Mm-hmm. nit gis la rek sopp la mm. loolu yàlla la damay ñaan yàlla ñëpp di bëggante man gëm-gëm boobu laa am euh, li ma li ma li ma dafa loo xamante ne chaque fois mooy sama jàngat ci àdduna ma bëgg gis-gis boobu muy law mooy que ne gis nga euh, xoolal chaque fois lu positif ci nit effectivement regarde toujours Euh, parce que quand tu vois tout le temps le positif ci nit dootoo xool lu bon. dégg naa dëgg ah. waaw dégg naa dëgg lu positif rek. ci nit positif ci euh, il faut il faut tout le temps acteur nga mais en même temps édu éducateur nga da ngay jàngale. <laughs> en tout cas ça a été un plaisir vraiment euh, bëggoon naa am mbégte lool lool lool lool lool jàkkaarloog yow jotaay bi la nga xam ne àdduna ñu ngi koy seetaan mais comme géré page yi xam naa ne.